jërë ngeen jëf mbokk yi te jii ci àllarba ji yemoog le 18 novembre atum 2020 ñu dikkaloon leen ci benn village bu nekk ci commune bu Mbar ay xeexoo ak ay jàppante yu amoon ci jamono ji ñu génn ci diggante sàmmkat yi ak ñi nga xam ne ñooy baykat yi ba yàlla dogal nag kenn ci ñoom ñàkk ci bakkanam moom la mbir nag ñu koy toppandi ba jamono ji amaguñ ci lu leer ba tax na police ak gendarmerie ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo ngànk boobu la liggéey ubbi nañ ci ab enquête pour xam dëgg-dëgg mbir mi nan la demee ba tax na nag ñenn ci ñi nga xam ne ñàkk nañu seen doom sa nañu ay kàddu ñu teewlu leen. man El Hadj Aliou Ka tudd ci kër bi laa juddoo fi ñu koy waxee nii. lu waraloon ndaje bi tey. Eh, ñun ñoo warale ndaje bi suñu doom suñu rakk moom moom moom moom la jërëyin ci lii. am nañu lu ñu nakkari nag ci rëy bi. rëy nag mosut baax fenn mosut nekk fenn waxuñu nag fii mooy premier wala fii lay mujje waaye ñun am nañu lu ñu nakkari parce que bu fekkoon ne xale bi bi muy bi muy sàmmi dafa yàq ñoo rey ko sax ñu xam ne moo yàq séeréer ñëw na naar ki ko ak moom daawar ka ki ñu rey yëpp suñu njaboot benn lu tax lool ah, ay su dëkk bi yëpp seen turandoo ñu yàggan li ma waxoon léegi village bi am téeméeri at ak fukk ak juróom ñaar mosuñu daggal loxo kenn fii ci village mosuñu mosuñu rey kenn fii ci village loolu mosul am ci Thiénaba Pathia kon bu ñu toogee boo erreur bi am commandant jógee am recherche am léegi ñëw costé def lépp def dawaaram def dossier dem ñibbi ñu dem ñu xam ne ci mbooy lañu fekk suñu maire jóg wax ne loolu amut da ñëwut fekki wut dañu ci moom la ñu baasoo mu ne ci biir tool bi nay foofu la foofu la ñu ko reyee dafa doon dow ku ñu dagg tànkam xar boppam gor ko jaasi ci ci ci biir ba butit génn est-ce que kooku mun na dow même bu doon sax ci biir tool bi kon foofu lañ koy fekk délégation boobu waa waa kër naar jenne naar naar kamoom ak ki ñuy wax Ousmane kan ñun xam nañu njaboot bi ñun ak ñoom ñoo juddandoo fii ñu màggee fii kon xam nañu ñuy béy ci tool yi kuy ñëwut sax ku tardé liggéey xam nañu kon bu ñu yoree ñeenti saret ñeenti saret yooyu bu fekkoon léegi ci li ñu wax ne ne ay xale ñoo ko yoroon waroon nañu leen fekk ci ci kaw yoon wala ñu fekk saret ji bi ci tool bu ate saret lu tax ñu jadda boo ñu dem lu tolloog fukki mètre wala ñaar fukki mètre ñu taxaw ci bopp ki ñu rey ñu fekk leen foofu ñu daw waaye bi ñu jógee ñu wax ñun tam ñu ñëw ñu teew si loolu dañuy wax xale yëpp wecc ngaalaama jar ngeen jëf taxaw leen ngeen déglu kenn du xeex kenn mbul kuloo mbul saag lu ci yoon war a def dina ko def lu la ñu yaakaar kon bu ñu jogee suñu meer ñooñu sëriñ Ousmane Ka sëriñ la suñu mbag la xana ah, wetee Serigne Serigne Ka ak usmaan Ka mooy chef de village bi Ka Mbay Samba nee moo ko wax ne ne man man man Serigne Ka chef de village bi ci la man maa teew man maa gis xale bi ci nay ci biir loolu loolu rafetu nañu loolu loolu nekkuñ parce que mu ngi mu doon boole ak moom ak Ousmane Ka bi mu jógee njenne dégg na am na ku dee mu ñëw fi fekk fi suñu nijaay ak suñu suñu bajjan mu ne ko eh, dégg naa ay sàmm ak olo ay ak sàmm ak béykat eh, gaañante nañ baa du ci dëkk bi mu nekk kër alaji xoga jam laa la amee suñu pap mu jooy mu nakarlu loolu seen wax de suma wax paara laa dégg parce que bu ñu doon boole wala ñu ngi doon sos duñu wax duñu waxal kooku loolu mu ne loolu dafa roon fii daanu mu dem ñibbi Ousmane ñëw teew bi ma ko waxee téléphone bi ma ko waxee ma woo ko téléphone mu ne ma man ak sa rakk ku ñu wax sayku mun na ma seede ñun ñoo tombeloo foofu ñun xamuñu ci affaire bi dara ci suma téléphone bi ma jox ko suma numéro téléphone ma ne ko loo soxla ci man loolu fi man maa ngi toppala ci yow loolu parce que ay kilifa ngeen bu fekkee lii am na ñëwal leen ngeen jooy leen ngeen di yokk leneen problème suñu diggante ak yéen loolu dina métti ñun nag ñu ngi seet ndax ñoom ñoo ko wax wala waxuñu ko wala mbay samba moo leen sosan loolu wala mbay sama ma bëgg ñun ñu am ak ñoom histoire wala am déet comme que dawaar bi li mu war a wax am na ñu ko wax ba pare waroon na ñëw fi massa wu ñu rek waaw même bu fekkoon ñu ngi def lu ne wala am na xalaat léegi faral ay mbokkam ñun xam nañu loolu. même bu ko waxoon ñun xam nañu loolu parce que xam nañu ñu mbokk bi mel. ni ñu xamee suñu bopp noonu la ñu xamee ci biir dëkk bi. mais suñu doom lu ñu ciy ñaan. daaw da kaa ci ci carrière la la doon commencé. jabaram mu am ñaari doom ñu xale yu góor ñoom fii xale yu ndaw dee na bàyyi na leen fii daawrakat dem na dootul naa nguur nañu toppal ku bokk ci action bii nañu ko teg loxo ñu jaarale ko yoon ku ci bokkut amuñu ci moom benn soxla lu ñu ci sosal kenn loolu gën a luñ te suñu diggante ak suñu bàmmeel na ñeneen ñu des parce que ñeenti sareet mënuñu ko fekk ci bopp ku dee ñu ne ñu ne ay xale ñoo fa nekkoon wala ay jigéen mhm. kon mbay sambana taxaw mu ne ñu diw ak diw moo ci bokkoon ko xam ne ne ay xale ñoo ci nekkoon na na nañu woon ne ne kii ak kii moo ci nekkoon ñun bi ñu ñëw fekk ñëpp daw nañ dem nañ ñun toppatoo ñu bu fekkoon ne amoon nañ yara dik wala leen xale yi bu ñu leen gaaroon aatu mun nañu gaañ mbaam ñu ne ñoo gor mbaam wala def nañu def nañu wala def leen ak leen waaye loolu ñun dañuy dañuy maîtriser loolu ñu ko def parce que lii am na am na ki xam ne yéene lii am am na ki nga xam ne yéene ko woon dégg suñu métit loolu li kii waxoon fii rek moo fi am parce que tey nag dina fekk ci tool loolu la ñu wax. tool itam dina fekk ci ay nag presque fii ay ay ay ay ay ñun fàttali fii ay ay ay tilli ak lu ne ci àll bi daal kenn du ko béy waaye béy nañ béy nañ même yoon yi ñu mayoon nag yi ñuy jaar yëpp béy nañu wala ñu béy fii benn tool ñu bay mbooy fu sori mbooy boobu ala kulli ànd bu demee ba nga góob wala nga nga nga naaf nit mun na fi prof lu ko dem ci tool ba war mu mun nañu war a bay loolu na yi mën a àggaj fo waaye bu fekkee léegi yow yaa ngi yaa ngi baare àll nag yi du ñu fa agsi te nag yi fii lañ dëkk borom tool yi fii lañ dëkk kon war nañu ñaan loolu ñu jàppale si loolu ñu yaatal yoon yi yaatal alal wala ñu may may benn ay hectare ñu ne léegi sàmm leen fii ñuy béyee fii xam ko loolu mënut am léegi nag yi ñu fan lañ leen jëmee dañu leen di yeew rek ñu ngi leen xool rek mënu nekk mhm. ñun depuis téeméeri at ak fukk ak juróom-ñaari ñu fii nag mosu fi jóge béy mosu fi jóge xar mosu fi jóge ba tey demuñu sàmmaane ba tey suñ li ñuy fekk fii lañ lañ topp ba tey mhm. dégg nga ma ñu ngi ànd ak ci loolu léegi nag mbay samba li mu wax mu ñun loolu moo ñu nakkari loolu moo ñu métti yoon bu ci mënee def yoonam def lu mu war a def naka def suñu diggante ak mbay samba pour loolu amut ñun am nañu droit bu beneen yoon ne encore ñu ne léegi nañ nañ def nag boo demee nga fekk ay nagu jàmbur ci ay mbooy fekk ruural nañu la comme ku ruuroon mu xamuñ kan la yow xamu kan la nga fekkee ma ci wetu foofu man maa ngi soog a ñëw nga ne yow dama jël sa marque bi dama yóbbu communauté ñu fay am na suma am na suma rakk yu ngi fii ren def nañu leen loolu ay xale yu ndaw ñoo sàmm te ruur bi comme démb woon ñu ne léegi nañ yóbbu ba ba ñooñu ñoo wax ne ne fay leen fukki junni yi fay ñoom ñu bañ a histoire ñu waroon nañu def ay constat ñu def ay ay ay ay ay ay euh, ñu ngi teg saytu saytu bu ñu vérifié ñu ne lii ak lii lii jaadoon lii jaadoon waaye loolu amul yow da ngay demandé rek wax nañ nañ jël ay marque kon kay damay toog suma toor rek suma nawet baaxul yaakaar naa li ma leboon mënu ma ko fay ma nay yomb rek ma ne jël naa seen numéro euh, seen diw na ma fay xam naa ko lii nag bu dakku nag histoire beneen dina sukkeeku xam fan lay sukkeeku nag ci àddina bi di leen fas yéene jottali action bi amoon fii mhm. sama rakk moo koyoon di sàmm mhm. ñëw ci mbooy bi ngeen taxaw nii mhm. léegi borom tool ñu fekk ko foofu ci mbooy bi ñu amant ak ñoom histoire léegi ñu ñu gor leen gor ko bee dànkay dagg tànka benn tànka bi dagg fii fi ma takkaw nii foofu la tëdd mu ngi nii fii ci ngeer yi nekk léegi am benn sàmm bu ci tombé woo ma téléphone mu wax ma Daouda Ka dagg nañu tànk dowal ñëw ma ne ana ñi daggoon tànk ñu ne doow nañu léegi ma takk foofu sareen ñëw bi ma tombee ci Daouda Ka desewul dara fekkee dem na hmm. léegi ma woo chef de bi ma laaj ko mi ma commandant bi mu ne dafa dafa daanu ak portable beneen bi léegi ma woo service bi léegi ñu jox ma mimar commandant bi ma woo ko ma expliqué ko léegi moom mu ñëw woo sappoor ñëw fekka ma fii fi fi ñu taxaw nii commandant fii la ma fekke maa ngi tiiw tiim néew bi léegi mu costas sappoor ñëw costas ñoom ñu yóbbu seen néew léegi ñu filme fii yëpp ñu ñu fekk fii ñeenti sareet ñeenti sareet ndax fii ci mbooy bi lañ ko fekk léegi ñu jàppa ci naarka ak am dikkaan mhm. léegi ñun nag ñu lu ñu métti mooy du ñooñu kese ñoo bokkoon ci ndax am na sama benn jerbaat bu àndaloon ak booy bi mu ngi am bi ànd ak kii gaañu mu ngi am fukki at juróom léegi mu ne du ñaar ñooñu ñoo ko reñ am na ñeneen. Mhm. ñeneen ñi bokkoon ci histoire bi am na ku jóge tool bee ñëw bay foofu soxnam am na ñeneen ñi jóge tool bi di doon naaf ñëw bokk ci histoire bi. léegi yéen yow yow bi nga ñëwee tim ko lan fan nga gis ñu gor ko lan ak lan ci tànk bi rek lañ ko gor. tànk bi dagg nañ ko. Mhm. fii. des tuuti. Mhm. léegi ñu gor ko fii ci ci ci pooj bi. Mhm. constat bi constat bi jàpp na ko même ci bopp bi am na góor it. Mhm. léegi mu ngi tëdd fii def san euh, commissaire bi mu ñëwee. for na fi ay dàll ñoom for nañ fi ay dàll ak ay yet nañ la ñu reyee nit ci biir tool dàll yooyu desuñu foofu. Ah, ah waaw ak ak ak tengaadi yooyu ak yet yu gudd yooyu. Hmm. gopp yooyu. kon kay fekkonte ne ci biir tool bi lañ histoire bi amoon matériel yooyu duñ ko fekk fii. kon ngeen jàpp ne duggul ci biir tool fii lañ ko rey lañ ko rey loolu lañ ñun moom loolu lañ jàpp. Mhm. waaw man ma tombé foofu ci histoire bi ñu ma mhm. tedd fii. Mhm. di dee nan lañ koy reyee ci am problème amee ci biir tool mu dow be fii tànk be kenn mënul dow. waaw yoon na mu def liggéeyam ñu jàpp ñeneen ñi des képp ku ci bokk. nañ yoon def liggéeyam téye ko kee ñu nag commandant brigade bi kee bu ñu ci kenn nagu def continuer ci liggéeyam mhm. léegi képp ku ci bokkul ñun suñu yoon nekkul ci moom mhm. waaw maire bi ne li mu intervention li mu wax li mu wax de fekkewul commandant waxu ko ko euh, sëñ naar kan kooku waxu ko ko léegi pour lan muy muy muy seede lu mu fekkewul waaw loolu moo ñu gën a métti nag ci maire bi loolu gën a métti ndax moo ñu uufi ñun ñëpp waaye warul def par parlo te ñun par parlo lañ ko gis waaw mu nag bëgguñu romb yoon yoon na mu def liggéeyam jërë ngeen jëf mbokk yi lii mooy li ñu leen jëlee loon tey ci àllarba ji yemoog le 18 novembre atum 2020 ci village bi nekk ci commune bu Mbar tey àllarba 18 novembre atum 2020 ci xeexoo bi amoon ci diggante baykat yi ak sàmmkat yi ci commune bu Mbar jërë ngeen jëf